asalaamaaleykum professeur ñu ngi lay ziar di la nuyu. ñu ngi leen di fay di leen nuyu. ngeen woote askan bi ñëw wuy mhm. euh, waral woote bi ak euh, as euh, ñëpp ñëw. man ci waaw xam nga réew mi dafa toll foo xam ne non seulement dund bi jafet na lool waaye dafa mel ni daal nit ñi fitna dafi bari am na ñu bari ñu ci biir kaso yi. Euh, am na ñoo xam ne ñu ngi di mbugal ay candidats yoo xam ne ñu ngi di mbugal donc moo tax ñu ne nañu créer F24 bu ñu créer F24 ñu fexe ba nga xam ne euh, Macky Sall bi nga xam ne warul euh, bokk ci wote yi mu bañ a déposer candidature parce que bu ko déposé rek day indi day indi fitna ci réew mi ñu bëgg mu libérer prisonniers yi ñu bëgg mu am élection présidentielle bu bu bu dal boo xam ne ñëpp ci bokk. Euh, ñu am également loo xam ne day tax day tax réew mi jëm jëm kanam donc bu ñu wootee lii nag ni ñu ñëw duñu am lu dul mbégte parce que li ñu bëgg mooy. ñu wuti jàmm teg ko ci dëgg donc nañu nañu jàpp dëgg dem wuti jàmm moo tax loolu lañ bëgg jàpp askan yëpp jàpp loolu ñu ànd askan yëpp ñëw wuy si leen waaw am am ci mbégte bu rëy a rëy day wane ne askanu Sénégal dogu na ci aar constitution am dogu na ci aar article 27 bu constitution bi nga xam ne mooy wax président Macky Sall mënatoo nekk candidat nekk nga ko ñaari yoon fa la yem ñettal bi am mbégte ci taxawaayu askanu Sénégal tey ndaxte pare na pour aar sàmm yeneen candidature yi nga xam ne président Macky Sall da ko bugg a faagaagal faw président Macky Sall xam ne moom du bokk Ousmane Sonko day bokk Karim Wade day bokk Khalifa sàll day bokk Mimi Touré day bokk Déthié Fall day bokk Thierno Alassane Sall day bokk Bougane day bokk ñëpp mën nañ bokk ba mu des moom ñetteel bi mooy détenu politique yi ce n'est pas négociable duñ ci dialogue day libéré mu neex ko mu naxari ko day libéré les 400 détenus politiques yi nga xam ne moom la tëj jamono ji jërëjëf. wala ñu ngi fi ak euh, monsieur Abdoul Mbaye ancien premier ministre mu wax ak ñun tey jii li nga xam te ni moo xew euh, fii ci place de la nation en français en wolof c'est selon vous. J'éprouve de la douleur aujourd'hui, car il y a 12 ans, en le peuple sénégalais était porté par le même combat, exigeant le respect de sa constitution, exigeant le respect de leurs paroles par nos dirigeants. Aujourd'hui, ça recommence. Et celui auquel on veut rappeler les engagements qu'il avait pris était aux premières lignes du combat il y a 12 ans. C'est triste pour mon pays, d'autant que Quand vous faites du surplace, quand vous êtes dans le recommencement, cela veut dire que les autres passent, vous dépassent et vous laissent sur place. Il est temps cette fois que le virage soit définitif et que nous laissions derrière nous tous ces hommes et toutes ces femmes pour lesquels le sens de la parole donnée n'a pas de sens, n'existe pas, pour lesquels notre constitution n'a aucune valeur. Il est bon que ce premier grand rassemblement soit un succès et que d'autres suivent, que le combat ne baisse pas jusqu'à ce que Macky Sall accepte non seulement de renoncer à sa troisième candidature, de respecter les libertés et d'organiser des élections inclusives. Nous sommes avec le président du parti PAC, parti euh, boo xam te ni euh, yàgg na ci Sénégal bi euh, nous venons de le croiser ici à la place de l'Obélisque. Il va nous expliquer pourquoi pourquoi votre présence ici. Oui, bonjour à tous, bonjour au peuple sénégalais.

qui fait qu'aujourd'hui, les Sénégalais sont inquiets. Pas que les Sénégalais, mais également tous ceux qui sont les partenaires du Sénégal au développement. Notre objectif, c'est de faire en sorte de renforcer la démocratie dans ce pays. Le président Macky Sall a bénéficié de deux mandats qui lui ont permis de renforcer, quoi euh, à l'acquisition du pétrole, liées également probablement à, au renforcement des forces euh, de défense et de sécurité. Cependant, nous avons constaté qu'il y a des lacunes qui se sont révélées sur le plan notamment de la liberté d'expression et sur le plan également des droits politiques. Nous voulons que le président de la République affirme haut et fort devant le monde entier qu'il ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle. Nous voulons un peuple euh, apaisé, nous voulons un Sénégal qui continue d'être un Sénégal de paix, un Sénégal de teranga, un Sénégal où tous les Sénégalais trouveront leur compte grâce à toutes ces richesses que le bon Dieu nous donne. 11 ans après le même combat, n'est-ce pas un recul 11 ans après le même combat, on pourrait penser que c'est un recul. Le président Macky Sall lui-même, euh, en 2011, euh, faisait partie de ceux qui disaient stop, il faut arrêter cette euh, forme de dictature, cette forme euh, d'orientation vers euh, une sorte d'autocratie. Eh bien, nous sommes aujourd'hui encore en train de nous battre pour ça. Mais vous savez, tant que nous avons la vie, tant que nous avons l'énergie, nous nous battrons pour ce peuple, ce vaillant peuple sénégalais qui mérite tous nos efforts, comme nos ancêtres ont donné leur vie, nous sommes prêts aujourd'hui à faire en soit non pas seulement des termes, non pas seulement une expression, mais que la démocratie soit une réalité et cela nous vaudra tous les efforts du Je veux que tout le monde le sache et je crois qu'aujourd'hui, si le F24 est présent, c'est pour dire au monde entier, nous sommes prêts, nous sommes notre peuple est en danger et ce peuple mérite toute l'attention que nous lui portons. voilà euh, ñu ngi fi ak aussi euh, monsieur Dianté syndicaliste la tey dafa ñëw bokk nañ ci euh, force vive de la nation ñu laaj ko tam lan moo waral tey ban impression nga am bi nga gisee ni toute la population sénégalaise pratiquement ñëw na ñu fi wala boog la population dakaroise wuy si leen lu ngi leen di wax. waaw d'abord man maay Mamadou Lamine Dianté. Euh, nekk syndicaliste mais président du mouvement pour une citoyenneté engagée Andu Nawlé euh, bokk ci Yewwi Askan Wi euh, lii loo xam ne suñu mbëbët la woon pour que ñu boole doole force vive de la nation ñu daal di ci dox ànd ak yeneen yeneen entité dont non non à un mandat ak waa FRAPP ak Mimi 2024 ñu daal di liggéey pour que véritablement toutes les forces vives de la nation war a mën a euh, fekkee mbir mi tey jii ñoo ngi à plus de 175 organisations et de personnalités politiques euh, indépendantes yoo xam ne ñëw nañu bokk ci lii euh, lii bu ñu ko defee ñu gis ne l'essentiel ou la majorité du peuple sénégalais est venu répondre à notre appel cela veut dire que li ñu taxoon a jóg dëgg la te également euh, askan bi fekk nañ si li tax ñuy xeex ñeenti mbir la parce que gis nañ ne mbirum troisième mandat dafa nekk situation boo xam ne euh, am na ci yenn euh, réew ñu gis ne nu ñu mujjee ñu ñu gën a jege moom mooy Guinée mais également Mali ñu jàpp ne suñu constitution dès lors que dafa tere mu am une candidature à un troisième mandat ñu jàpp ne. comme di ko sénégalais yi bëggee Macky Sall bañ a présenté wu en 2024 bu ko defee jàmm mën a wéy Sénégal mais déjà bi ko Abdoulaye Wade forcé en 2012 gis nañ lu jural lu mu jural Sénégal donc Macky ci boppam bokkoon na ci ñi doon xeex pour que Abdoulaye Wade bañ a am troisième mandat euh, mu dem sénégalais yi euh, atte suñu diggante ak Abdoulaye Wade jox ko nguur gi il faudrait pas que aujourd'hui mu wóobalti muy naan Euh, nit ñi dafay def troisième mandat bu loolu wéyee ñu jàpp ne ñëpp ñi nga xam ne ñëpp ñi nga xam ne euh, euh, Abdoulaye Macky si boppam moo leen génnee ci course à la présidentielle ñu mën a leen réintégrer évidemment li ñuy laaj moom mooy que ne constitution bi terewul ñooñu ñu bokk ci élection bi moom constitution ci boppam moo ko tere bokk ci élection yi donc ci code électoral bi la waxtaan dugal loolu ci code électoral bi war nañu mën a yóbbu code électoral au niveau de l' assemblée nationale ñu génnee article l ak L30 bu ko defee ñëpp mën a bokk parrainage ñu supprimer ko parce que kuréel boo xam ne ci la Sénégal bokk muy CEDEAO dafa ne euh, niñ ko euh, parrainage niñ ko baaxul war nañ ko dindi dañ ko war a dindi mais surtout li ñu tax a tey moom mooy que ni ay téeméeri téeméer prisonnier yi nga xam ne Macky Sall daf leen di jaay doole dugal nañ ci ay prison dañu bëgg mu libérer ñooñu ñëpp le plus rapidement possible ñu delluwaat seen euh, njaboot delluwaat seen liggéey Sénégal mën a continuer dund mais tant que moo leen di yore ci seen prison yi ci ay prison bi évidemment dafay indi ay situation yoo xam ne euh, dafay jur fitna te fitna daal xëjul Sénégal lu xëj Sénégal moom mooy jàmm ndax nit ñi mën a euh, jóg tous les jours di dem daxi euh, seen i wërsëg di dem wuti dépense pour que ñu mën a añ reer ndekki donc loolu la Sénégal bëgg de sorte que dañu ñaan Macky Sall daal mu delloo si si xelam mu libérer prisonniers yi mu supprimer parrainage bi mu euh, bañ a présenté wu en 2024 et mu permettre à tout ce que ñëpp mën a bokk élection yi parce que tey ji lu ñuy xaar ci moom mooy organiser ay élection yu mucc ayib bu organiser ay élection yu mucc ayib évidemment ñëpp dinañ ci bokk euh, bu ko defee moom mu mën a am une retraite paisible. merci beaucoup monsieur Dianté merci c'est gentil. mbokk internaute Sénégal yéen a ngi jàkkaarloog euh, Malick Gakou président du grand parti yaa ngi en direct sur Sénégal lan mooy sa première impression par rapport ak manifestation F24 F24 mais suñu manifestation bi tey li ko lënk mooy euh, ñu fexe ba président Macky Sall bañ a xalaat wut troisième candidature. parce que constitution bi dafa leer Sénégal kenn du fi am troisième mandat waxatuma la nag troisième candidature loolu moo tax peuple bii bi la tey pour xeex loolu te daañu fexe ba obligé président Macky mu jóge ci bopp réew mi ñu def élection yoo xam ñëpp a ciy bokk ñi war a bokk Sénégal yi tànn librement leur prochain président ba ñu defaraat Sénégal. gis nañ la situation elle est tendue un partout mais président woote na dialogue. gis nañ yéen ñu ci bari bañ ngeen ñëw ci dialogue est-ce que tey demoon ci dialogue bi du une opportunité ngeen mën a waxtaanee question boobu. mais nous sommes contre le dialogue parce que un dialogue doit se faire pour répondre aux préoccupations du peuple sénégalais. Et le dialogue euh, pour lequel nous sommes conviés est un dialogue d'île et nous ne pouvons sur le dos du peuple sénégalais. Les élections doivent élire librement leur président. Et le dialogue ne procède pas de cette volonté de tout faire pour que le Sénégal ait une grande expression des libertés et une démocratie avec des élections libres, démocratiques et transparentes. C'est pourquoi nous ne croyons pas au dialogue, que nous considérons comme un dialogue d'île et nous, serons, nous allons lutter foncièrement contre ce dialogue, contre les intérêts du Sénégal. tey su ngeen bañee dialogue bi troisième mandat ba fan la leen mën a yóbbu. mais fa mu jaral ñi ko bëgg a def leen leen jaral rek nañu lépp loolu ndax Sénégal. parce que Sénégal jar na lu nekk rek Sénégal jaral nañ ko gis nañ ne nag seen coalition bi Yewwi Askan Wi problème yi commencé na tàmbali gis nañ récemment sorti Barthélémy Dias Ousmane Sonko bal de ping pong bi entre ñoom ñaar lan moo ci sa réaction. waaw xam nga tey jii coalition bu toll nii Yewwi Askan Wi coalition bu mag la euh, kenn mënu wax ne coalition bu toll noonu du am ay coow waaye coow lu ci mën di am. ñun dañoo bokk benn ambition dañoo bokk benn objectif mooy dajale suñu doole pour xeex Sénégal pour xeexal Sénégal xeexal Sénégal boobu nag euh, du ñàkk ñu am ay divergence mais li am solo mooy ñu ñëpp benn lañu. Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias suñu yaay rek lañu ñu ñëpp benn lañu ñoo bokk ndey ñoo bokk baay te bu neexee yàlla daañu ànd ci xeex boobu ba yàlla may ñu ndam ndam li nag ndamal Sénégal la ñu ndamul kenn ku dul ndamal Sénégal te daa ñu fexe ba Yewwi Askan Wi nekk benn bopp loolu mën la mës a nekk te lool la Sénégal yi xaar ñun. ok Sénégal ngi lay jaajëfal Euh, tey gis nañ leen fi dajale muy manifestation pour troisième mandat bi ban réaction nga am boo ñëwee ak ñu ngi fi fekk. waaw jërëjëf Sénégal maa leen di nuyu di nuyu seen téléspectateur di wax ne bi may yegsee nii euh, dama am ñaari sentiment bi ma seen nii dama am ñaari sentiment benn sentiment bi kontante la parce que gis naa ne ñu bëri ñoo xam ne dañu bëgg Sénégal bëgg Sénégal doon dëkk boo xam ne dafa am démocratie jëm kanam ñoom ñoo fi daje pour xeex donc mobilisation boobu dañ ciy kontaan. mais en même temps dama am gàcc parce que dama bokkoon ci ñi nga xam ne en 2012 fii laa ñëwoon ànd ak président Macky Sall ak ay ñoñam ñuy xeex troisième mandat donc bu ñu toogee fukki at ak benn après ñu ñëwaat fii di xeex troisième mandat di Sall bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo àndoon xeex ba tax mu nekk président loolu sama gàcc la gàccu Sénégal la waaye surtout gàccu président Macky Sall la. ñuy fàttali Macky Sall di fàttali sénégalais di fàttali suñu bopp ne boo amul droit troisième mandat mënoo am droit troisième candidature donc ñun waxuñu ay waxu conseil constitutionnel waxu président Macky Sall warul yàpp sénégalais yi ba jël ay bagaasam ànd ak Ismaïla Madior Fall yor saagam dem ci conseil constitutionnel naan dafay déposé moom moo respecté wul loi Sénégal te moom président Macky Sall bu respecté wul loi Sénégal ñun ñëpp jox nañu droit pour ñu bañ a respecté loi Sénégal. aujourd'hui lan la li mu ko jaral rek la ñu jariñ damay waxtaan ak beneen pa benn paa bu am xam-xam keroog Saalum. mu ne ma fi ngeen toll nii ci troisième candidature bi ñett rek moo fi am da ngeen di neexalante mu ne ma da ngeen di neexalante ma ne ko waaw mais neexalante bi defe romb nañ ko mu ne ma boo rombee neexalante bi da ngeen di nekk ci waxtaanante bu nekk yooyu yëpp sottiwul ngeen defante bu dee nag defante la bëgg dinañ ko topp ci defante bu dee respecté ci loi la bëgg dinañ ko respecté ci loi woote est-ce que kooku tey dafa pare pour défendre est-ce bi mënul bokk ci dialogue. parce que mandat bi Macky Sall moomu ko Abdourahmane Diouf moomu ko opposition moomu ko pouvoir moomu ko Benno Bokk Yaakaar moomu ko sénégalais yi ak république bi moo ko moom. le mandat n'est pas négociable mandat du loo xam ne dañ koy négocier di wax yokkal ma at wàññil ma at yokkal ma ñaari weer et cetera mandat amul loolu. bu dee nag d'accord na ne moom dina nekk président de la république bi nga xam ne mën nañu organiser élection ñu jongante ñu dem suñu biir. ku gën Sénégal ci Sénégal sénégalais yi votel ko bu boobaa am na question yoo xam ne mën nañu waxtaan ak moom te bu boobaa sax soxlawul muy doon moom parce que moom am na administration boo xam ne ci ay parrainage ci ay nu ñuy organiser élection xarañ nañ ci mën nañ ci waxtaan donc moom daal li koy ñaan mooy li nga xam ne moo ko fi dese mu fexe ba du def Sénégal doomu taal pour que président bi nga xam ne moo koy remplacer ëllëg bu ñëwee mën a doxal jërëjëf a Euh, nekkoon directeur immédiat te nekkatu ko donc monsieur Mamadou Ibra kan tey lan mooy sa taxawaay ci manifestation waaw sama taxawaay mooy taxawaayu demee c'est maintenant dañu ñëw takku taxaw ne F24 dañu signe charte bi lépp lu F24 yëkkati dañ ciy topp parce que xam nañ ni F24 lu mu bëgg mooy jàmm. lu mu bëgg mooy dal mais lu mu bëgg mooy démocratie sax li mu bëgg mooy président Macky Sall nee na nee na bind na jeexal na ci ñaari mandat yi 7 plus 5 muy 12 ans troisième candidature mënul am loolu moo tax ñu taxaw te pour ñun loolu c'est sans concession donc lu F24 yëkkati demee c'est maintenant day taxaw leader man mii damay ñëw taxaw. c'est vrai que waxoon na ko waxaat ko waxaat ko ne du def troisième mandat mais bu ñu demee ba toll fii gis mu woote dialogue parce que tey demoon ci négociation yooyu noonu gënul woon nekk une opportunité pour une solution. oui d'abord waxoon na ko waxaat ko ba léegi nag waxagul ndax dina nekk candidat mhm. li ñu jàpp mooy waxoon na du nekk candidat te liñ koy ñaax mooy na coalition am tànn beneen candidat parce que moom mënul bokk. parce que démocratie la am nañu droit am kandidaa ñoom Benno à l'exception du président Macky Sall bu ko defee ñu dem élection ci dal ci démocratie ci transparence sénégalais yi dem voté ji ñu may nit ñi ñu dem voté ji parce que ñun ba léegi dañu jàpp ne dañu war a yokk diir bi pour nit ñi mën a bindu ji ñaareel bi parenage bi ñu waxaat ci parce que parrainage bi filtre la mais du pour éliminer dialogue justement le parrainage war nañ ci mën waxtaan les inscriptions sur les listes war nañ wax waxtaan la transparence du processus électoral war nañ ci mën a waxtaan ñun dañu ne oui au dialogue mais nañu wax conditions yi ak terme de référence yi lan la c'est vrai que situation mais da nga que mën nañ la xaar ci opposition waaw non xam nga boo ne danga nga rejoindre opposition wala opposition radicale man du loolu mooy sama gis-gis dama rejoindre dama parce que loolu laa ci mën a loolu moo mës a nekk dama nekk ci combat du peuple sénégalais donc lépp loo xamante ni yëkkati na sénégalais leur majorité man yëkkati Kinama amul à qualifier de radical ou de d'autres choses je suis un mouvement citoyen je me bats pour que les Sénégalais puissent aller aux élections présidentielles dans la paix le calme et la stabilité pour qu'on puisse développer notre pays et régler définitivement la question de la troisième candidature gis nañ ndaje bi euh, ndaje troisième candidature Macky Sall moom moo ko waral tey gis la fi nga gis population bi ñëw ban impression nga am. impression bu ma ci am moom mooy satisfaction parce que day dalal suba xel ci Sénégal parce que sénégalais lii lañ leen xamee maanaam peuple bu mbos di bañ la mosuñu am buur Sénégal depuis 1960 te duñu nangu am buur ponk ak sartu démocratie ñoo fi war a dox. li nga xam ne moom la ñu digoog askan bi askan bi dafa war a wone ne moom moo yor doole ji bu ñu gisee aussi muy dem ci benn chance bi nga xam ne nekkul lu ñu war a digg woon suñu devoir la ñu teew pour fexe ba lépp li nga xam ne en tout cas moo fiy taaral di fi rafetal démocratie ñu mën a sàmmonteeg moom. yàgg nañ la gis ngay xeex combat yu mel ni ay troisième mandat. mais est-ce que tey euh, bu ñu demee ba toll fii président Macky Sall woote pour ñu mën a waxtaanee yenn question yi est-ce que tey kënul woon tey ñu dem wuy ji waxtaan boobu. waaw c'est que ci yoon ku la woo waxtaan war nga dem mais ku ñuy waxtaanal dañ ko xam parce que dañoo waxtaan ak moom ba tënk. 2019 jox ko tëxañ ko ci këyit mais ba sànq ci suba jëfewu ko donc ki nga xam ne li nga waxoon ak moom jëfee gu ko léegi nag doo demaat di dellu di toog ak moom di perte sa temps loolu moo tax ñu jàpp ni moom appelu dialogue am bi sincèreul stratégie politique la ñun nag dañu nekk ci yoon ñun parce que jàpp nañ Sall pare li ci réew mi donc ñun suñu yitte moom mooy amatuñu jot dañuy commencer préparer l'après Macky Sall moo tax amuñu temps di dellu di toog ak moom ci table pour tënk ay mbir yi nga xam ne du ko jëfee defee woon euh, ji digge woon 2019 ba sànq su ko def. tey c'est vrai que Macky Sall waxoon na waxaat ne bu defee ñaari mandat pare na ci dafay dem beneen ba situation bi toll fi ñu jàpp ne xëy na yaakaar nañ ne dafa bëgg a defaat beneen mandat mais yow en tant que juriste tey est-ce que juridiquement juridiquement buñ nee la mandat est de cinq ans nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs lan la réellement lan la bëgg a wax. waaw lu ma bëgg a wax réellement jarul ngay nekk juriste pour xam ko. Euh, nañu xool rek ñaata yoon la Macky sàll yëkkati loxoom waat def na ko benn yoon defaat ko ñaari yoon. donc moom ba muy ñëw fii Sénégal dafa fekk constitution wu 2002 di tere deuxième mandat fii ci place de l'Obélisque 2011 fii lañ doon manifester donc fàtte xaju fi. donc du ma où constitution bi bu waxee ne nul ne peut faire plus de deux mandats moom mooy jëmm ji nit ki nga xam ne yëkkati na loxo boobu mënuñu ko gis ñetti yoon donc bu dee moom la rek moom mooy pare na ci. tënk nañ ko farankulaayu na wax ji wax bu yàgg. tey <laughs> au cas mu am insistance ne dafay bokk lan la leen jaxal non moom lu lu ko jaral jaral nañu ko. lu tax mooy place bi man nekkoon naa ay at avocat wu du Diop. fii la daanu filoko oto dragon mbëkk lu ko taxoon a teew fii ci mbooloo bi comme tey ñu fi teewee moom mooy dafa gëmoon dëggutewu message bi nga xam ne ñoom Macky Sall ki ñoñom moom lañ doon woote ne fii ci Sénégal dañ fiy dàq ñetteeli mandat donc ñun suñu devoir la ñu sàmm intégrité wu révolution boobu mais aussi ñu fexe ba ñoom Mamadou Diop ak yeneen fukki nit yi nga xam ne ñoo ci dee parce que fukki nit ak benn dee nañ ci manifestation yooyu plus de 300 blessés ñooñu ñu fexe ba ñoom ñu dee pour rien donc ñun suñu devoir la tey parce que nangu troisième mandat mooy après seen assassinat physique ñu nangu ñu assassiner seen mémoire te loolu du ma sa Sénégal. jërëjëf. gis nañ tey ndaje bu leen fi indi mooy question de troisième mandat bi. bi ba nga ñëwee gis population bi génn ban impression nga am d'abord. xanaa kontaan lool te xam ni sénégalais yi fa ñu nekkoon démb ak bërki démb fa la ñu nekk ba léegi te sénégalais yi nag dëgg dëgg dëgg leen jox seen àq war na leen teg seen place. ndax ça fait plus de vingt ans tous les dix ans ñu ngi woo nit ñi pour ñu ñëw. teew ci lii nga xamee ni mooy xeex boo xamee ni dix ans yu nekk ñu woowaat leen comme su fekkente ni kenn mësul xeex comme su fekkente ni kenn mësul see gaañu comme su fekkente ni kenn mësul see ñàkk sama kan tey je pense que ni détermination wu Sénégal yi war na daw yaramu képp koo xamee ni am nga si pour que Sénégal ak doomu Sénégal ñi génn ci gouta yi nga xamee ni suñu action politique moo leen ciy dugal. e et la seule satisfaction. Mhm. mooy que ni dëgg-dëgg sur vingt ans le peuple sénégalais est resté égal à lui-même mais malheureusement c'est les élites politiques ñoo nekkul au rendez-vous. de l'histoire et au rendez de la responsabilité. gis nañ ne boobu ba léegi Macky Sall déggaguñ ko mu ne dafay poser candidature mais gis nañ ko quand même woote na dialogue mu ne ñëw leen ñu dialogué yow lan mooy sa position si dialogue boobu est-ce que aussi gisoo woon ne tamit tey demoon ci dialogue bi solution la pour ñu waxtaanee yenn question